jërë ngeen jëf seen beeg Rufisque Sénégal télévision mbokk yi xarit yi ngi nuyu bu baax di leen dalal jàmm seen émission nooy def ba fallu émission bees bi leen dëgtal seen chaîne la télé qui vous de la réalité euh, donc tey jii nooy def ba fallu dafa jël beneen tournure euh, parce que tamit c'est une émission politique certes waaye ñu dëgmal li nga xam ne mooy ay élection locale kon baax na ñu daal di àddu seen sujet yoo xam ni dina laal si ñi nga xam ne ñuy euh, na tey ñu daal di dalal ci plateau bi monsieur Idy Ba di acteur communautaire ñu soxal wàllum développement communautaire développement citoyen ak tamit def benn analyse bu ndaw ci lu soxal ville bu Tëngéej ak élection yi ñu jëplu li ñuy def mooy bàyyi ko mu nuyu say internautes laata ñoo sóobu ci waxtaan bi euh, monsieur Ba maa ngi lay bàyyi nga nuyu say internautes. Euh, asalaamaaleykum waa euh, asalaamaaleykum waa télé bi. maa leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di kontaan trop nag ci teewaay bi ma teew fii tey mhm. pour waxtaan ci li nga xam ne man moo ma gën a soxal moom mooy développement communautaire. Mortala lay gërëm bu baax aussi si invitation merci beaucoup tontu euh, monsieur Ba donc euh, si nga nekk acteur communautaire fi ñuy dooree rek mooy euh, tey jii lan bu ñu doon laajte lan mooy développement communautaire lan ci mën a indil. développement communautaire concept la boo xam ne tey képp koo xam ne dafa nekk ci àddina li muy aspirer mooy dund dund gu paa waaye dund goo xam ne dina am. plaisir dina nekk dund goo xam ne dund gu tane la mën a lekk mën a naan boo amee soxla mu réglé nga dund ci jàmm loolu nag li ko li ko li ko ëmb dafa bari ndax santé ngi ci leneen ak leneen a ngi ci donc pour que loolu mun a am nag il faut que ñoom fuñ ko teg boo déggee développement donc mooy loo xam ne dafay jëmal nit ki kanam mais communautaire pour la communauté communauté bi nag ñëpp la ka gën a yore ba ki gën a ñàkk parce que souvent dañuy xalaat ne kay gën a yore amul problème mm-hmm. mais kooku am na problème am nay problème yoo xam ne en fait mbooloo moo koy réglé parce que damay faral di wax ne képp koo gis ci àddina am na lu mu mën am na loo xam ne mënu ko koo gis ci àddina am na lu mu mën loo xam ne keneen mënu ko koo gis ci àddina am na lu mu soxla loo xam ne keneen a ko yore donc du caagi ne dama yore xaalis bu bari dama kër yu bari am naa lépp am na loo xam ne soxla nga ko ka nga xam ne yorul dara mu nga toog ci mbedd moo ko yore donc loolu yëpp bu ñu ko boolee dafay nekk genre développement boo xam ne dafay jëm ci biir communauté bi. donc loolu ci suñu suñuy dëkk waaye ñun loolu la ñuy woowee développement communautaire. donc kon su ma déggee maanaam développement communautaire bu nekk tënk ci li nga xam tey jii mooy bu ñu nekkee ci commune bi. Mhm. maanaam chef de quartier bi quartier bi nga daal di dajaloo si benn concept boo xam ne lay def mhm. pour suqali gox bi mu jëm kanam. voilà man dama koy gën a yaatal sax génn sax commune bi. damay wax ni ci àddina bi donc la communauté elle peut être beaucoup mën na gën a yaatu commune bi ñun ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci dëkk bi bokk dëkk bokk Sénégal bokk leneen leneen war nañ mën di xalaat di dimbalante pour que ku nekk yegg à niveau boo xam ne sa xel dina dal ci àddina voilà dina jafe rek mais loo xam ne aussi lu ñu liggéey la rek si ñu fii si Sénégal suñu communes yi suñu ko goxaan ndax en tant que acteur euh, communautaire jàpp nga ne euh, pour mën a teg jéego yooyu noonu dina yomba ci askan wi. Euh, Sénégal malheureusement politique la ñuy gën a def ko <laughs> développement c'est que aspect politique bi dafa bari doole trop si gestion commune bi ba dina bari wàll yoo xam ne dafay des parce que doo di nga ko dégg. tout le temps nit ñi dañuy nekk di kaas c'est pas parce que dañuy li ñuy kaas nag dëgg la toujours parce que yenn saa yi di nga laaj loo xam ne moomoo ko mais doo ci xam dara da nga yaakaar rek ne yaa ko moom war ko laaj sa maire wala laaj ko keneen mais il faut dire aussi que commune yi euh, war nañu mën a góor góorgóorlu ci seet lan mooy problème population yi pour régler ko te loolu li koy waral rek moom mooy proximité bi ñu am ak population yi yegg ca seen place te loolu dafay indi benn problème boo xam ne dinaa ko waxaat après mm. moom mooy affaire tey ji conseil municipal. un conseil municipal pour man warul jóge ci kaw ñëw suuf dafa war a jóge ci base bi dem ci kaw. dëkk yi quartier yi ñoo war a proposer seeni conseil municipal. dëkk bu ne dafa war a seet ña nga xam ne ñoo fa taxawal quartier bi sonn pour quartier bi bëgg kanam bi dem parce que xam nañ ko. ñoo ñuy seet ci ñoo xam ne ñoom ñooy dem ci conseil municipal bu boobaa waxtaanu conseil municipal dina neex la fay am moom mooy juste rek euh, loo xam ne dafay amal njariñ population mais choisir nit ñi parce que di responsable politique wala nangam nangam la tey ji développement communautaire boobu en tout cas vie communautaire boobu dafay manquer au niveau des instances de décision mooy commune yi muy maire yi ainsi de nag sama gis-gisu bopp la mën naa am aussi ah, lu am solo la sax moo tax bëggoon ñëw si li nga xam ne mooy principe yi waaw principe yu développement communautaire ak li nga xam ne tamit ndax njiiti nekk si bopp commune yi ndax ñu impliqué bu baax si li nga xam ne mooy ci wàllu woowu mais principe il faut déjà ñu comprendre ko pour euh, pour euh, pour pour pour pour dem ci parce que en fait principe bi du dara lu dul fexe ba ñi nga yilif ci sa commune li nga xam ne moom mooy seen soxla yi gën a ndaw mu jëm ci santé mu jëm ci assainissement mu jëm ci éclairage public par exemple ah nga nga jiital ko yow donc loolu principe yi nga principe principe yi nga xam ne moom mooy mooy sous en fait développement communautaire loolu la il faudrait que les populations seen soxla yi gën a ndaw ah seen soxla primaire yi nga nga nga mën ci def ay jéego peut-être que noo def lépp mais nga def si ay jéego parce que nous euh, boo gisee euh, waxtaan bi demee nii c'est parce que ñun dañu nekk ci ay dëkk yoo xam ne amuñu doole. Euh, gis nañu Tëngéej peut être quatre pour cent population bi amuñu doole. donc euh, tey jii euh, principe bi dafay du du principe beeg objectif bi day day ute ak boo demoon France wala nga dem feneen nga xam ne ñoom am nañ d'autres systèmes mais dëkk bi fii yow dañu war a am seen système bopp boo xam ne noonu la ñuy gérer le communautaire xool lan mooy problème yi nga xam ne moo gën a sonal population yi ñu réglé ko tey jii ñëpp xam nañu Tëngéej bu nawet amee. mais mais dëkk bi yëpp dafay taa mais mais tey ji loolu mais il faut que lii gën a sonal population yi la tey même bu fekkee ne dëkk yi taaw da ngay gis dëkk bu mel ni sant yàlla bi ma dëkk mais chaque jour da gis am naa suma benn grand boo xam ne mais mais tout tout tout tout tout toutes les semaines mu vidé non c'est pas que ndox buy jóge si kër gi la mais ndàppi moom mooy yéegal ki setal kooku chaque semaine nga def vingt mille francs mais loolu moom tey jii Euh, naataange këram mais dafay wàññeeku. bu baax tu vois donc sa ce sont des problèmes yoo xam ne dafa war a nekk ay problèmes prioritaires yoo xam ne mairie bi dafay ñëw reyante ko dañ la wax nag su que ne mairie bi amuñu xaalis amuñu doole. mais mais mais mais mais gis nga tey jii. dangay ngay les moyens là il faut pas attendre les moyens yi ñu lay jox wala recouvrement yooyu da ngay wuti ay moyens additionnels da dem wuti ci feneen da ngay da dem seeti ji les les les ba bailleurs de fonds et autres da ngay da da ngay gas ngay gas. pour dem wuti ji leneen ñëw doolee kooko doo xaar si suñ lay jox boo naree xaar suñ lay jox c'est clair que du du doy mm. du mos a doy di nga am nag prétexte ah man kat budget bu ndaw laa am c'est vrai mais aussi jox nañ la ay possibilité nga dem wuti daf la koy jaral nga dem wuti ba pare am nag euh, xarañ te wut aussi loolu daf ci am solo le maire qui doit être choisi war na xarañ ci dem wuti parce que wuti am na gis naa fi ci dëkk yi ñoo xam ne en fait à chaque fois ils des, des, des étrangers, ils sont en, rapport avec des ONG et autres di régler seeni problème je pense que loolu aussi doo xaar rek état état état état c'est vrai mais aussi yow dañ la fal pour que nga réglé lay problème ah. dëgg la tey ji yéen ngeen ñi tamit euh, nekk ci gox yi di fa def ay projet yoo xam solo parce que ni yow ku su ne sa kaa dañ ko nemeeku mm-hmm. euh, si école ku ne ko tudd école pionnier daanaka du euh, tëpp tey jii naka ngeen ñuy def ba collaborer liggéey boobu ak côté moyen alors loolu dafa nekk benn côté boo xam ne euh, dafa wuute ak sax euh, booy seet euh, côté commune yeeg maire yeeg yooyu parce que yooyu c'est des actions personnelles yoo xam ne c'est des actions vraiment communautaires parce que avec des amis avec des des des des des parents si la ñuy defee avec des moyens propres si la ñuy defee action yooyu boo seetee souvent nga gis école Marème Tall ñu def fa initiative table banc changé table banc yi suba ñu dem école pionnier ça fait cinq ans ñu nga ci ndox mi mais loolu ay bonne volonté ñoo koy def ak seen poche peut-être que bu ñu demee ba mu yàgg souvent di nga gis euh, mairie bi wala ñeen ñëw jàpp ci mais il faut dire que tout au début en fait et à chaque fois euh, en tout cas c'est des c'est des moyens propres ça j'ai pas peur de le dire suma di ko wax c'est des moyens propres ba nag samay xarit sama ay ñeneen ñoo xam ne dañ dëkk Tëngéej gis ko ñëw jàpp ci parce que liggéey bu metti la dafay laaj ay moyens noonu lay demee un peu partout dans les écoles ak donc mën nañu wax fii Sénégal kon bokk euh, li nga xam ne mooy wàllum euh, développement communautaire suñu njiit yi sóobu wuñ si bu baax duñ leen a dooleel hmm. euh, jox leen moyens yi nga xam ne puisque mënuñoo matale lépp moom ay nit yoo xam tey jii am nañ ay projets yoo xam ne peut-être bu ñu leen boolee ay link nañ mën a indi benn apaisement ak benn plaisir si li nga xam ne mooy dund askan mais c'est vrai a grave sax mooy que tey jii boo nekkee acteur a méngale ak acteur politique voilà ça c'est un problème tey ji gars yi bu ñu la bëggee bu ñu la gisee nga nekk di activer wu sur le plan du développement communautaire di def ay action de citoyenneté dañ naan dafa am lu mu bëgg dafa bëgg nekk maire wala dara alors que en réalité je pense que yoon yi nga xam ne moom mooy yóbbu foofu c'est pas forcément yoon yooyu ba tax na tey jii c'est malheureux souvent dañuy nekk ay euh, ñi nga xam ne dañuy gérer commune dañ lay gis comme un rival donc duñu bëgg li ngay def dem ci kaw donc naturellement duñ la jàppale parce que dañ lay jël comme un concurrent alors réalité bu ñu demee tout souvent si élection dinañ gis na yow tu n'es même pas intéressé par loolu moo tax boo xoolee léegi sax ñoom politiciens yi léegi dañuy jéem a ñi nga xam ne acteurs communautaires yi di leen dugal seen euh, biir ay yi ngir ñu mën leen euh, favoriser au niveau des populations. mais mais pour capitaliser li ñu ñooñu di def la parce que xam nañ ne kii déjà ça fait dix ans ngi koy dégg mu ngi def ay action communautaire mhm. donc nit ñi xam nañ ne tëngeej ah kii tel nit boo ko tuddee da naan ah kooku de moom mu ngi si vole social mu ngi si communautaire ñoom dañuy bëgg a booleel seen biir bu ñu la boolee seen biir jëlaale nag say euh, waaw voilà li nga liggéey yëpp ñu boole ko ñoom seen bilan capitaliser ko mais je pense que les gens ne sont pas fous ku su nekk loo liggéey rek moom ngay fayu quoi Euh, d'accord voilà euh, ba tey ñu nekk seen émission nooy def ba falu tey ñu am beneen tournée boo xam ne dañ koy jël di waxtaan li nga xam mooy wàllum développement communautaire ak li nga xam mooy développement citoyen si li nga xam ne mooy euh, ñu si dalal monsieur Idy Ba di acteur communautaire tey jii développement bu ñu nee développement communautaire maanaam tey jii li leeral leeral nañ ko sax mooy suqali gox bi ak seen i propre moyen ak askan ba fay yeewoo ah. tey jii yan lan naka la ñuy élaborer li nga xam ne mooy projet développement communautaire en Euh, fii nii moom euh, développe euh, projet yi en dafay dafay dafay ñëw nii rek quoi c'est-à-dire que dañu dëkk nekk si dëkk yoo xam ne dafay metti ba nga xam ne à chaque fois dangay ngay xëy rek gis benn problème problème baa ngi nii alors yow mi nga xam ne yaa ngi yàlla may na la nga bëgg xalaat ci loolu da ngay toog te essayer de réfléchir ah waaw mais lii de problème la naka laa koy régler kan laay àndal régler ko initiative bi jóg c'est des initiatives en général ñoom ñooy am initiative citoyenne Tëngéej booy seet y'a que des initiatives citoyennes initiative citoyenne yooyu nag euh, initiateurs yi bari nañ yaa Rufisque y'a beaucoup de gens yoo xam ne ñu ngi si dans la citoyenneté et dans dans la vie communautaire donc doo duñ élaborer un projet non non non non c'est-à-dire que da ngay gis ne ah telle xale yaa ngi toog si suuf di bind amuñu table banc nga ne bon qu'est-ce qu'il faut pour que ñu am ñi mënuñu faju ko fayu naka ngay def pour def benn programme comme kaay faju bi nga xam ne dama koy coordonné naka ngay def ba booba nit ñi faju benn jour au moins tu permets à à mille personnes de se soigner ba pare am seen i garab xaaraat déwén mais au moins tu règles un problème aujourd'hui dinañ mën nga fa détecter ay maladies yoo xam ne dañ koy suivre après mu régler donc noonu lay deme c'est des initiatives yoo xam ne toog xool la gis na tel problème na ci quartier bi lañ koy régler naka lañ ciy wute saafara en attendant maintenant que ay état ñëw ak ay ay moyens régler ko moom mais au moins nga soulager ces populations par des actions yoo xam ne yenn saa yi quand dina régler dina régler problème école la ngi tijji euh, famille yi gis naa leen ñu ngi nii xale yi di ma romb nii leer na ma ne duñu am kaye nga woote ne mais gars yi ku am kaye sa kër wala ay livres yu jeex mais seddoo ko ak ñii et avance. moi je pense que man en tout cas personnellement c'est comme ça que j'élabore plus ou moins entre guillemets mes projets je vois que y a un problème qui est là j'essaie de réfléchir si naka lañ koy régler naka lañ koy régler du man rek maa koy régler mais c'est la communauté moo koy régler ku nekk da ngay am sa tuut ñëw ñu dajale ko et dans la confiance seddoo ko ak ñi nga xam ne ñoo ko soxla je pense que c'est comme ça plus ou moins que ça se passe. d'accord est-ce que yéen tamit seen seen ay projets yi ngeen ñu tëral di ngeen si solliciter li nga xam ne mooy aide commune bi su ko defee ñoom tamit ñu gën a xam ne tamit yéen du ngeen seen ay rival mais tamit seen war a bokk yoon bi pour mën a cheminer ensemble. en général dañ leen di si solliciter mais il faut dire en général du ñu uyu aussi. du ñu uyu sinon dañ ci topp di wax di dem ak a ñëw ba benn moment da ngay xalaat ne jaru ko. Hmm. la nga daan def muy kii. Euh, muy réussir et puis euh, gis nga nit ñi fii en tout cas Rufisque nit ñi sawar nañ trop ci jàppalante. si c'est-à-dire que loolu dafa nekk à Rufisque nit ñi sawar nañ ci jàppalante peut-être que euh, ñu bari dañ koy wax dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen may ñuy am ay initiative mais ñenn ñu aussi dañ ciy gërëm gërëm yàlla bi mu leen mayee ñu mën a intervenir ci action yooyu moo tax c'est jamais difficile ah toutes les tous les projets yoo xam ne dañ koy defee à Rufisque. mais dafay dafay dafay jàll facilement parce que nit ñi dañu ñëw taxaw si semaine passée man nag suma benn xarit ak ñeneen ñu ngi dem gis benn classe koo xam ne ay xale yu ndaw fay jàng classe bi xaw na xaw na ñaaw liw na ñu ngi jëm ci sedd bi may ñu xëy fa changer verre yi changer bunt yi changer table banc yi peinturaat classe bi dem si yoon benn fan la c'est pas beaucoup de moyens mais au moins ça règle un petit problème en attendant maintenant que le ñu daal di dugg si beneen pàcc bi rek muy développement citoyen comme ni ñu ko waxee tey jii euh, bu ñu nee euh, développement citoyen lan la mooy xam nga citoyen bu ne am na lu ko war ci dëkkam. Mhm. xam nga citoyen Sénégal li ñu gën li ñu gën mën mooy kaas kaas seeni droit mais am nañu ay devoir en général na côté boobu dafay sooxe. parce que ki la gën a mën a jox leçon de morale moo la gën a mën a def si ginnaaw loo xam ne. en fait ah, ki la gën a mën a jox la leçon de morale tey suba mu ngi mu ngi def moom ci bopp loo xam ne en fait waru ko woon def donc moom mu ngi gis rek que ne non lii la war a demee non nii la war a demee mais moom lan la war a def ci loolu pour mu demee noonu duñ ko xalaat tey jii boo gisee euh, euh, problème ci dëkk bi nga gis ku ñëw taal benn bus keroog dama gis benn mbër mu wax lu am solo am na yu bari yoo xam ne yaa ngi koy def mais sa bopp nga koy def wala say bopp nga koy ko <laughs> mais sa bus na parce que ñi nga xam ne en fait ñoo jiite dëkk bi ñoom dugguñu ci bus yooyu leneen ak leneen quoi tu bloques la circulation les gens ne pas au boulot mais ñoom ñoo koy yëg parce que Sénégal 60 pour cent ou 70 pour cent si secteur informel lañ nekk bu ñu demee bu ñu demee liggéey wuñu du ñu fayu insuffisance donc tey jii euh, citoyenneté bi la ñuy wax même développement citoyen c'est beaucoup mais citoyenneté Sénégal dañ ko war a xoolaat du def ay action rek bu également casse gis nu kii non dama ko war a casse c'est très bien nga casse vivre société mais il faut de qu'on vive en société il faut que civisme bi aussi dellu si waat citoyenneté civisme moo ko jiitu il faut que nga am nga xam say devoir soo nga xam nag say say droit mais tamit foogoo ne xam ngi commencé jamono ji di sooxee si li nga xam ne mooy le côté éducation bi parce que boo xoolee amoon ay programme yu tëra mais tamit jàppoon mi ngi xaw suuxee tamit <laughs> mais xam bala ngaa dem sa xale ñi leen di jàng seen bopp souvent ñoom ñoo dul sax voilà ci moom la démarré. foofu lay commencé problème day parce que nit mënoo ko jàngal loo xamul yow. c' est que bu si mag mag ñi bu ñu amulee éducation civique ñun bu ñuy jàng école dafa moom benn matière boo xam ne dafa tudd éducation civique chaque jour dañ lay jàngal dara da nga xam te loolu amatul fi mu nekk nii on apprend au gens naka ngay dunde naka ngay débrouiller loolu la ñuy jàngal xale yi ah. naka ngay débrouiller pour dunde loolu rek la jàngal kenn jàngal leen naka ngay def ba amal njariñ sa dëkk naka ngay def ba euh, en fait li la war nga def ko jàngalatuñ leen lool boo xoolee programme yi am nii naka ngay def ba dund naka ngay def ba génn ci lañ lay jàngal ça c'est un problème donc tey jii euh, citoyenneté bi loolu day day tax mu sooxe parce que nit ki jàngaloo ko comment être un citoyen un citoyen moderne kenn jàngalewu ko fenn dañ koy wax nii ci rajo yi nangam nangam ñenn ñi bind nangam nangam ah. amul benn impact parce que kenn gisul léegi citoyenneté gis nga li xew si dëkk bi dañuy wax naan xale yi kenn mënatu leen gérer ah xale bu toll nii mu ngi da ngay tey jii ñu ne la kii reer na ah xale bu jigéen bi réer na suba ñu ne gis nañ ko fële nangam nangam tout ça éducation de base moo commencé manqué ci société bi amatul d' accord euh, xam naa boobu moom hmm. donc ci sawara mais tey en tant acteur communautaire tey jii euh, naka ngay euh, jugé bilan yi nga xam ni tey jii suñu quatre maires yi fi nekk depuis seen mandat ba léegi ban jàngat nga am si global situation ville bu Tëngéej ci yaa may laaj ba xaw a difficile en fait souvent ñu dégg ma si politique hmm. mais bu ñu ma déggee si politique c'est parce que damay bëgg mu nekk un tremplin pour que ñu mën a def ah man de li nga xam ne gis naa ko dégg ko Tëngéej en tout cas maa ngi koy gis moom mooy que Tëngéej avancé wala dafa dellu ginnaaw ça c'est clair. surtout côté infrastructure assainissement mais certes bu ne assainissement dafa bokkatul si ne mooy compétence mairie. bokkatul mais quand même Tëngéej moom man de en tout cas bari na ñoo xam ne ñu ngi wax mais waxuñu ne. ah tëngéej ji ngay avancé tëngéej ji ngi reculer ak ngay dégg koo dégg loolu moom nañ ko nangu quoi waxuma ne nag kii liggéey na wala kii liggéeyul waxuma ko parce que man nekkuma si instance yooyu ba xam ñoom la ñu liggéey ak lu ñuy liggéeyul peut-être aussi communication bi côté boobu des na en tout cas man li nga xam ne maa ngi koy gis nekk ah, Rufisque quoi mais loolu la sax parce que li ma gis en tout cas Rufisque quoi nekk en tant que Rufisque quoi jàngee fii lycée Abdoulaye Sadji maa juddoo fii maagee fi gis naa ne te ngay gënoon a neex te ngay gënoon na set te ngay gënoon a am moins problème c' vrai que y' a eu l' extension parce que man fu ma dëkk sax extension la te ngay gën a yaatu. Mhm. mais c' la catastrophe dans ces zones là. dans ces zones là c' est la catastrophe foofu dara xew fa. problème mu lampe dafa am problème mu ndox am fa problème mu assainissement am fa donc euh, c' est vrai que ah compétence yi souvent du compétence ñi mhm. mais. Euh, d'un point de vue global dañu war a def poids kii on parle des. de du projet de dix villes de xam du Sénégal wax ne assainissement boo moom lañ lay tagal ne la assainissement bi dix villes yi Tëngéej ci la bokk mais si nombre de quartiers yi am à Rufisque ñaata ñaata quartier ñoom ñoo si bénéficier wu si si problème boobu si programme boobu donc ça c'est c'est c'est c'est un grain de dans la mer cest dire que problème bi du loolu je pense que il faut que les gens apprennent à dire la vérité aux populations lu mën a nekk nga ne lii moo mën nekk lu mënul nekk nga nekk xam nga lan mooy problème mu politicien yaa Rufisque dañuy digaate digaate loo xam ne duñ ko mën duñ ko def souvent ils par exemple ñu ngi jëm ci ay élection dañuy ñëw non sant yàlla fu mu dëkk damay joxe exemple dinañ leen wutal ay égout dinañ leen defal assainissement alors que c' est pas vrai c' est pas possible eux ne peuvent pas le faire donc booboo parce que xam nga ne lii mooy seen problème nga ñëw da nga leen koy dig ah, man dinaa wax président de la république dinaa wax kii dinaa wax lii di ngeen damay après bu jeexee élection nga ñëwaat redire la même chose mais les gens ne sont plus. est-ce li nga xam ne discours politicien man dama damay wax ne li tax sawaruma ci politique population bi la xam tax. parce que population bi ñoom seen bopp ñoom ñooy tax lii di xew di xew. parce que ñoom li ñuy soxla tey population bi xaalis. ki yore xaalis la ñuy adulé euh, xaalis bi na nga ñëw jox leen tey 2000 francs suba paiement ba lañ laa gërëm nga mën a jox xaalis mais kooku lay jox xaalis mais ban xaalis la lay jox. mais bu da koy récupérer. da koy récupérer donc loolu moom moo fi am toujours nit ñi cent mille élections am na fi cent mille wax am na fi mais à chaque fois ce les mêmes choses boo demee nii tey jii si dëkk bi les gens les politiques parce que yore nañu xaalis ñu ngi joxe xaalis même bu ñu ko xoolee si kaw boo demee ci benn réunion politique rek nga nga déglu nga xam ne ces gens là nit ñi seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy wax bëgg nañu suñu dëkk ndox ñoom ñooy njëkk a soxla xaalis di ko laaj et nañu xam ne tant que sa se passe comme ça ça va jamais li ñu soxla duñ ko am donc ñu jëm li nga xam mooy élection locale euh, sànq wax nga si laata ñoo commencé waxtaan bi benn projet boo xam ni tëral ngeen ko euh, pour indi apaisement si li nga xam ni mooy dëkk bi ak euh, tension yi nga xam ni bon ñu si bëri jàpp nañ ne bon élection yi da nekk day nekk loo xam ne du yomb surtout au niveau du département de Rufisque. loolu dëgg la dañu xalaat waaw ah, avec des amis ak certains jeunes de Rufisque que ne Euh, Tëngéej foo dem ci Sénégal dañ lay wax non Tëngéej dëkku politique la dëkku politique bi du dëkku aay politique mais dëkku violence politique la en général loolu lañ lay wax il faut des qu'on se la vérité parce que les gens sont un peu violents ci ci politique bi violence verbale violence physique souvent day am sax ñu ne loolu Sénégal yëpp la mais ñun waa Tëngéej il faut ñu fexe loolu bañ am il faut qu'on essaie de sensibiliser par quoi par le sport par le football donc euh, maa baalu ak sama gars yi sax parce que kenn mandaté moom pour ma wax ko fii mais je pense que plateau bi euh, mën nañu permettre ñu waxtaan ci. voilà exactement waaw bu boobaa aussi ñi nga xam ne war nañ ci wax dinañ ñëw gën a yaatal mais li ma ciy wax rek moom mooy que ce tournoi là dafay réunir en tout cas le les les les les les élus yi nga xam ne dañ nekk si si si si si si commune yi. tey jii boo demee commune nord. non du ñu wax waa APR commune nord déedéet APR coalition ya fa nekk ak ah, PDS ak ñoom ñëpp ñoom ñooy bokk benn équipe. investi ya fa nekk si boor boo nekk yow si benn équipe ngay ne ñu dem est même chose ñu dem ouest même chose donc ña nga xam ne duba ñoo war a jaamaarloo ci politique ñoom ñooy bokk benn équipe àndandoo foondoo réewandoo jouer un match dans la paix ah véhiculer les les leaders les têtes de liste également véhiculer message wu xamale na ñoom ñëpp benn la ñoom ni ñu nekk benn ñoom les leaders la noonu la nit ñi ci ginnaaw wala nekk benn et kenn rek mooy gagné bu ñu demee ci élection yi ñu voté dem ñibbi kii gañe gañe dëkk bi avancé waat parce que boo xeexee tey suba di nga arrêté. dëkk bi dina ko dina dox. donc euh, le projet c'est ça c'est un tournoi de football boo xam ne bëgg nañ ko def commencer le 12 décembre ah nous allons ñun suñu bopp prendre en charge toutes nos dépenses. d'accord duñu laaj kenn mu jox ñu dërëm ñun suñu bopp. lu fay am ñun ñoo ko fay defal suñu bopp que ñun ñoo jël euh, initiative bu teg projet boobu donc. amul benn politicien boo xam ne nañ la laaj soxla wuñ ko. waaw l'essentiel mooy que na tournoi bi am ñu véhiculer l' information de la paix. si communes yi est-ce que jotul tey jii euh, jeunesse bi nga xam ne gis nañu tey jii ñu nekk euh, à l'assaut euh, des communes ñu daan leen jox seen chance pour xool jeunesse bi lan la ñu capable ak lan la ñu ndax bu ñu changement dina mais boobu dafay fekk jeunesse yi dem à l'assaut à l'assaut justement de ces locales là les jeunes là sont derrière oui mais est-ce que tamit. c'est vrai que y a quelques jeunes. yoo xam ne dem nañ côté bi mu metti lool ba tax ñu daal di gis bëri parce que avant ñoo joxe caution bi ni nit ñi jugee woon candidat fu ne nga dégg ko mais après bon. ah effectivement sans problème pour les jeunes mais yaakaar naa ne le jeunes ne sont pas aussi jeunes qu'on le dit parce que ñi wax jeunes fii war nañu mën a def li nga xam ne moom la mag ñi lay def c'est vrai que il faut que ñu ñu ñu changer ça c'est mon avis euh, nu mu tudd li fi am pas pas brusquement c'est-à-dire que dafay dafay dem ndànk-ndànk renouvellement la mais pour ça il faut que jeunes yi seen bopp aussi ñëw gëm seen bopp taxaw xam nga tëngeej li fi gën a bari dama la koy mooy nous les jeunes nous les jeunes am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee nañ ree nous les jeunes nous les jeunes mais fa bi du slogan quoi c'est-à-dire dafa war a nekk jëf ñëw taxaw parce que en général ceux qui se disent nous les jeunes mais ils ont dépassé l'âge de la jeunesse ay mag lañu sax déjà ay kilifa lañu mais ils vont te dire nous les jeunes nous devons nous les jeunes te vous toujours derrière non ça se passe pas comme ça dañu war a jël seen responsabilité tey c'est 15 mais tënkee ñaata 15 millions fi génna bari na nañu dem seet naka la ñuy def ba am 15 millions bu ñu ko wutee ñëw présenté mais yaakaar bari am na ay candidature jeune ma koy saluer bu baax mais doyul il devait y avoir cette fois-ci ak ni gars yi y avoir plus de candidature jeune mais nag comme ni ma ko waxee moyens yi dafay posé wu mais aussi xam naa ne ñu ngi ci yoon y a des yoo xam ne ñu ngi si à risque euh, bu ñëwati di nga leen dégg. tam leen rek bàyyi <coughs> mag ñi duñ leen jàppale rek parce mag ñi dañoo bàyyi woon. d'accord mag ñi bu ñu bàyyi woon dañ leen di jàppale mais mag ñi bàyyi ñu mag ñaa ngi fi ba tey di donc ñoom dañ ils vont tout faire pour que booy nekk seen ginnaaw ce ah c'est vrai vous pouvez être mais nous aussi nous nañu ànd ñoom ñëpp ñu liggéey dëkk bi du jeunes yi rek a koy liggéey mais du mag ñi a koy liggéey selon ensemble moo koy liggéey ñoom ñëpp lañu ànd liggéey mu ngi ko monsieur Iba xam naa euh, yegg si nañ si émission fi ko jeexal rek mooy mouvement navétane hmm. jamono ji côté violence bi nemeeku nañ ko te récemment ñu ngi gis euh, vidéo yi nga xam yaa ngi koy euh, di si appeler le préfet à ce que mu ay responsabilités mu xoolaat parce que tey da ngay gis équipe bu gañe xeex équipe bu ñu gañe mu xeex tey jii da ngay gis benn équipe depuis le début muy gañe di gañe di yuuxu di ree di dem ñu gañe ko tey mu xeex ce qui s'est passé l'autre jour bi may def sama film bi mais c'était pas mon ASC qui mais man ñun yàlla daf ñu natoo ñu dëkk ci ginnaaw stade man maa ngi dëkk à presque un kilomètre du stade mais lacrymogène ya xeex ñëw na ba sama kër j'ai dû évacuer une femme boo xam ne dafa am asthme ah euh, am ay seex hôpital clinique na bi la fanaan donc loolu lan moo ko jar nawetaan yi il faut dire que man ni ma ko waxee que le préfet que les autorités nawetaan jël seeni responsabilité par rapport ak li xew le problème c'est pas que le stade yaa yaa quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que affaire ndax si biir stade bi la xewee c'est pas le problème ndax du si biir espace mais gis nga lii xew si biti si stade bi la découlé ñi nekkoon ci biir stade ñoo génn dem ci quartier yi di fa xeex donc la problème c'est pas ndax si biir stade bi la seen responsable c'est pas que dans le stade c'est avant c'est pendant et après donc nañu jël disposition yoo xam ne dafay tax dina metti nag parce que nit ñi dañuy bari mais nañ ci góorgóorlu dañ ci góorgóorlu ba violence bi ñu wàññi ko mais violence bi tant que ñu ngi gis équipe boo xam ne dafa violente ñu sanctionné ko suba ñu négocier indiwaat ko mhm. violence yi dafay continuer di nekk ñoom nañu jóg nañu bàyyi yooyu amul fii dañuy foo bu fekkee ne yow gis nañ ne mënoo foo bu ñu la sanctionné bu ñu jëlee responsabilité ba sanctionné nañ la bàyyi nga toog sa sanction mais bu ñu la sanctionné tey suba je sais pas par extraordinaire ñu ne la bon dellu si waatal mais ça pose problème. mu ngoog monsieur Ba ñu lay jaajëfal bu baax. maa leen di si euh, bi euh, di bàyyi nga tàggatoo euh, daanaka yegg see nañ si cappaandaw émission waaw mm, di di leen gërëm rek si opportunité bi ngeen ma jox. ma mën a wax li nga xam ne xalaat naa ko parce que tey je sais que ne li mu fi wax amal na ma njariñ man. ah peut-être que dina amal njariñ ñi ma doon déglu mais man sam bopp amal na ma njariñ parce que je sais que ne délivré naa ay message yoo xam ne dina am ñu ko dégg mu njariñ leen donc loolu yéen ñi ma ko permettre dama leen di gërëm mais di di di ñaan yàlla rajo bi gën a euh, télé bi gën a dem ci kanam ok merci beaucoup monsieur Idiba lañ doon dalal si li nga xam ne mooy seen émission na def ba falu euh, tey jii ñu doon waxtaane si li nga xam ne mooy wàllum développement communautaire développement citoyen laax wax ci analyse si situation ville bu Tëngéej euh, mu doon waxtaan bu am solo boo xam daanaka ñëpp dañ si jëlee ay jàngat euh, di leen jox di dajee benn yoon di remercier équipe technique bi ra coordonnateur am direction des programmes ak Max Plodio suñu directrice bi di remercier Faystar pour la tenue numéro baa ngoog di jàll si suuf wéy leen di notification ngir ñu dugal ngeen mën gis jërë ngeen